fi juróom benn at ci ren eh, bi ñu koy sanc itam eh, fekk na yàlla baaxe woon na ñu dem dëkk bu ñëw Fissel Mbadaan eh, dama demoon gana ji foofu samay mbokki bi man dama wax ne diw sama taalibe la waaye samay mbokki bi ay séréer lañu am nañu lu mat vingt ans yoo xam ne dañuy gàmmu seeg man mosuma dem seen dëkk ñu ni ma da nga nuy gana si may leen baax na léegi at moom man leen gàmmu Njaasaan mooy bisu gàmm bu dellusee damay dem Njaasaan waaye bu dellusee foofu laay ñëw bi ma demee gana ji leen nag ñu dem ba julli fekk nu julli nañ ci yoonu tisbaar bi ñuy julli tàkkusaan may ne ana jàkk ñu amuñu jàkk ma fa benn xeer daal te xeeru juma nee nen ko tudde juma yàlla di dimbaluñu ba juma jàgg bi mu àggee bisub keroog ma ne ah yonent bi day njàngaleem du nuy alma almadaris xabla al masajid la wax kon nag nañ teg xeeru daara gaaw ñu teg daara juróom benn weer ñu pare ko teen ba nga xam moom lañ doon gas si buntu daara ja itam suñu borom dogal mu nekkew ñeenti gaskat bàyyi nañ fa seeni i gask ba ma fa demee seeti leen ñu ne ma sëñ bi duñ suñ teen bi dafa noo jaaxal may leen nan ñaan yàlla yàlla dara jaaxalu ñu ñaan yàlla ba ñu ñaanee teen ba toj ndox ma génn la dëkk bépp ci ñu root ba nu fa jógee nag sama doom laa fa bàyyi woon bàyyi jib bi mu dafay jàngale ba loola tegu ci yoon ba nu fa jógee laa ñëw sanc fii bi ma ko sanceet sama maam Amari Ndaak Thiénaba Kajoor la juddoo woon Euh, bi mu déggee amadu Cheikh euh, sëriñam ba mu woo ko lee bind ko leetar ni ko tubaab bi dañuy lakk sama daara lakk samay téere rey samay taalibe léegi nag kon li ma yàlla wonoon jot na mooy xeex nag ak noon bi ba senegal gi moom euh, laa ilaha illallah muhammadu rasulullah gore fi ba ku ko waxati bal du jóg jaasi du jóg loolaa waral jihaad ji sama maam nag Euh, demoon wuyu ji ko ànd ak ñaari jarbaatam doonoon jàmbaari fàkk tëdd nag am fit lool waaw di jàmbaar man fas man fital e ba xeex ba jeexee ci gàttal xeex yi ëpp na ñeen fukk bu jeex jeexee bu mujj Samba Sadio euh, yàlla dogal Amadou Cheikhou euh, yàlla di wax ni yàlla bi ñu kudul de waaye bind ko muy suturaal tubaab yi xool nañu gis fasam waaye gisuñu kooram am na ci mag ñi ñu wax ni am na fi taatu sump gi mu toogoon di jokkalante mbiram ak amarindaak di ko wan ne ko li ma yoroon yow la ko yàlla jox lu mel ne sendal moo ko jël yóbbu ko loolu am nañu ko gëm am nañu ko gëmul waaye ñun xam nañu loolu am e, tabarkalla ba mu fa jógee la sanc cana ba bawal gi ah, ñun tam nag dañ ko war man cana ba bawal laa juddoo fa laa jànge fa laa yaroo fa laa màgge ma jógee fa ñëw sanc fii tudde ko madinatul munawara maanaam madina cana ba ah bi ma fi sancee itam li ma fi jëkk a def mooy euh, ndox booba ndox jafe nañ fi booba ndox jafe na waaye fi ma am jënd nii ba muuré ko ñu la def ci màngo yi amoon na teen boo xam ne waa dëkk bii Touba ñoo ko doon gas ba teen bi të ñu de ci sotti mu mbalit ba fees comme saret laay luyee di wut ndox bu xaw jafe may leen waaye yàlla nee na ad'uuni astajib lakum nan ñaan ci teen bi yàlla may ndox man ni maçon yi wàcc leen ñoom ñëpp ñu ngi dund ñu wàcc war teen bi nu ñaan biñ dee am juróomi fan dañoo ñëw fekk ñu dindi mbalit yëpp teg fe teen bi fees dell ak ndox maa dem ba yàgg ma dollu ci ñaari mool bu forage ci Thiénaba yi baaxul tund wépp ci la ñuy root teen baa ngi nii bi ma paree ba muuree foofu ba pare dafa néegu ñax ak salle féete fa ci laa def néegu ñax bee nekk feek dongo yi boobu fii bari nay jaan lool Euh, am na ci dongo yoo xam ne sax seen i bokk dañu leen jël si ndax dégg loolu bu guddee jaani li ñu ñëw fanaan ci dongo yi bu bu bu amoon naa fi naar boo xam ne euh, Fall moo fi nekk nag man Bachir Fall sama fit la yor ragalu dara jaan yu bari moo leen rey euh, daanañ gis genn góor goo xam ni danaan jóge fii yor benn bët ampul ay une heure deux heures rek mu génn ci yëgëraay bi wuti dugg ci ak guy fii waaw guy ga laa jëkk a daaneel daaneel guy gee door a commencé tabax nag daara ji fii ngeen ma fekk nii maa ko liggéey ay millions laa ci def dong yi fa dañuy fanaan fa dañuy jànge bu yàlla dogalee tam ma pare ci loolu ma te xeeru bi ñu ko inauguré sëñ Mamour Mbacké bu ñëwee moom laa ko dara jaale moo ko ubbi ak Mansour si bi nga xam moo nekkoon ministre emploi et travail doonoon sama goro di sama wëllale bi ñu ko ubbee ñu te xeeru jumaa ji tabarkàlla ma di ko liggéey ba mu raase yàlla dogal sama benn wëllëre bu baax euh, ni ma dama bëggoon a àggale jumaa ji mayaale la fi classe man ko loolu baax na mu ma may de pompe itam pour teen bi euh, defar ko ba nga xam boo bësee bouton rek da ngay ubbi ci robinet bi rot man ko loolu yëpp xewul la ñu dañ koy def ngir yàlla yu yónnee fi matériel bi ñu ngi koy liggéey yal na ko yàlla fay Euh, muy imam Ba dëkk ci Touba yàlla na ko yàlla fay ah euh, léegi nag fii ngeen nu fekk nii euh, maçon yaa ngi ci liggéey bi depuis une semaine ñu ngi fi gis nga classe bi boo ko wanee rasé na ñu ngi ci jumaa ji pour àggale ko après dañuy dale defar fii ba mu baax dañ fi nekk ngir yàlla rek nag di jaamu yàlla ci tout tànk yi ñi fi ëpp ci dongo yi fi fanaan seen waajur duñ fay dara daanaka mën naa ne kenn wala ñaar ñoo ciy joxe muy rijaal topp ca Touba. ñeenti doomam ñeenti doomam internat la ñaata ndongo fi yeewoo. waaw internat la ñi fi ñi fi yeewoo euh, war nañu mat ñeent fukki élèves yoo xam fi la ñuy fanaan waaw ñi nga xam nag ñoo fi jàng si daanaka xaw nañu mat téeméer jóge ci gox-goxaan yi di jàng si fii am na fi xale yu mokkal alxuraan euh, euh, matagul ñetti semaine tari na fii alxuraan ju rafet laa nu ngi góorgóorlu am na it xale yu fi mokkale yoo xam ne bi ñu waree tari seeni i waajur jël si leen man ñooñu mat nañ juróom-benn waaye jotuñu fee tari waaye bi ñuy dem mokkal nañ. tabaarakallaa loolu daal ci la ñu nekk tuddee ko nag suñu waajur sëriñ Jibril Seck. waaw ndax moom itam da doon nitu yàlla teel la mokkal alxuraan amoon ijaaba jubóog boromam loolu mboolem doomi soxna yi ay nawlem ci réew mi xamoon nañ loolu ci moom lu mu yàlla ànd waaw ah, moom ñun moo nu jox ndigal toog loolu fi mu toogoon li mu santoon it mooy loolu am def ci daara ak jumaa ci la ñu nekk. alors ah, euh, sëñ bi tey ci wàllu woowu tey bu ñuy xool li ñuy wax rek yore ay ndongo daara est-ce que ñoom dañuy. ñi fi ñëw ñëpp xam nañ lool lu ñu yalwaan lu ñu tilim du ñu tëdd fu bon eh, yàlla dimbali na may ci suturaam ah, lekk yu baax lañuy lekk waaw ceebu jën yu mag lañuy ñuy lekk ñaari fan yu ne maree gàtt. yalla dimbali na ma ci mu yom lek yu bax lañuy lek lekk tabarkalla di sangu ba set bo leen xolex xamni ni maa ngi ciy góorgóorlu ah du ñak nak am na ñoo xam ñoom seen bop ñu yalla mo leen bindé salti da ngay wax ko ba son waye dal ñi ñi ci ëpp dal set nañu. alors mais est ce que am na ñeneen ñoo xam dañ la jappalé ci walu collectivité locale wala état wala ay euh, mécène manam ay nit ñoo xam yalla jox na leen barké jappalé la jappalé dara ji est ce que lolu am na. Hmm, kenn dal mo fi mësa yone tonu tonn muy madame le président de la république. waaw te ñaanuma ko ko it damaa toog ba yàgg ñu woo ma téléphone ni ma euh, nu mu tudd soxna Marème Faye yónnee na la fi tonu ceeb waaye bu dul loolu de ñaare sama pexe bopp rek moo fi ne kenn nag moom may dimbali ci dépense yi ak yenn yi muy Alaaji Mor Gueye soppee na bi moom léeg-léeg mu jox ma loo xam ne dama koy indi ci daara ji ñu mën ci dund euh, lu mat weer wala lu mat ñaar fukki fan moom loolu dana ko def alors lu mel ni collectivité locale yi maanaam euh, mairie yi conseil départemental ak euh, yeneen euh, bànqaas yi nga xam dañ fi nekk rek nekkal fi askan wi est-ce que ñoom duñu intervenir fii. ah déedéet defuñu fi dara benn maire daal Mamadou Thiaw dëkk Tasset yàlla dogal baayam nekkoon sama baay di sama wëllare ma am ay ay bokk taalibe comme ni ma ko waxee ci Tasset ku ñuy wax Ablaye Ndongo. bayam ñu ngi Europe fi ay mamam yépp mok sama aaw ño bokk lépp sama rakk soxna mom la ko jox sama doom nga foofu ci mom yalla dogal na mu doon jambaari fàkk jël ci politique ando nak itam Idriss sek mais ñom biñ ko soxla pour mu ñew ci APR jàppale président momu di ciow bu ko soxla yalla dogal sama ben mbokk talibé waccu liggéey ma dem robi mu ñaan ma ni ma dama bëgg dal sama kër ma ko amul ben problème ma dem dal ak mom ci lolu mu wax ma nak digënté ak ablay ma dox ci ay jéego ba yalla dogal ablay nango and ak mom ci APR pour ñu liggéey lolu nak ba ko président yégué mu yabal fa Omar yum da nga yabal fa Thierno assane Sall bo mi ci ngor bi ak yeneen ministre ak yeneen kilifa ñu fekk bis bi nga xamné ci lañuy joxanté joxante loxo ñoom ñaar pour and ndax yalla mo ñu sante suñu liggéey ñun moy ñu réro ñu fexé bañ ñu ci cadre l'islam la doon doxal pour ñom ñu juboo cadre politique bu duggaale ci ñu kontaan def loolu euh, kero sax euh, kontaan nañu Omar Youm waxoon na ma ni ma waxal loo soxla ma ne ko ah, ma de bëgg naa nangam nangam mënuma danaa ko waaye bu yàlla dogal def defagu ko na gàllankoor jamono waaye xëy na du lu mu bañ euh, maire bi ni ma loo soxla ma ne ko dama am daara bëgg naa fa rang-rang mënuma danaa ko def boobaag léegi defu ko Eh, yónnee na ma fi nag ñetti yoon gàmmu ak tabaski bu ci ne yónnee na ma fi xaalis toll ci ay cinquante mille pour jàppale ma ci tabaski ak yooyu waaye nag comme moom la président dénk lu jëm ci wàllu rang-rang yeeg goudron yeeg li ñu war a defar. maanaam PNDL. waaw PNDL mooy mooy directeur PNDL. moo xam ne dina ko defar ñaari at waaye gisaguma dara woo naa ko ba tàyyi so naa ko ba sonn waaye yàlla dogalagul mu ñëw fi xam naa du bañ xëy na dana ko def. mais su ko defut yàlla jeexul ndax moom mi ñu jox ban def li bay tabax jumaa mën nanoo jox leneen ba na am fi sax goudron te xëy na bu ko président déggee danañ dimbali ndax ñun mësuñu ko ñaan dara moom président mësuñu ko wax benn soxla waaw te ñu ngi koy jàppale te yàlla xam na ne ñu ngi koy jàpp ndax tubaab dafa wax l'erreur vient des oreilles la vérité suit le chemin des yeux lañ ko jàppale te sax teg na ci bëtam. sëñ bi lan mooy doon euh, kàddu yu mujj rek euh, maanaam. Euh, dénkaane yi kàddu yu mujj yi mooy. ñun ñëpp nañ sax ci jaamu yàlla sax ci liggéeyal suñu borom doomi soxna yi muy muy ñi nga xam dañoo jàng seen diine wala bokk ci këri diine yi li ma leen di dénk mooy damay dénk sama bopp jamono bi ñu toll dafay aaxiru zaman il faut ñu farlu ci njaboot bi pour jàppaleen ñu xam yàlla xam alquran tegu xam yonante bi tegu ci yoonu siraatal mustaqim ndax bu ngeen xoolee àdduna bi ni mu yàqoo kilifteef jeex na kersa jeex na warsa bi boo ubbee gis kuy tas ñuy saaga kilifa kon man li may ñaan sénégalais yi nan dellu ci démb ku am kilifa rus kilifa yi ba pare ñu dellu ci kersa ndax alxayaa min al ñu dellu ci kersa bu ñu delloo ci kersa rek boo amee kersa te mu te muy dëgg di gëm yàlla di nga ormal kilifa di nga rusa wax sa làmmiñ lu ñaaw di ko mus rusa jëf waaye léegi kenn rusutul dara col yi baaxul kilifteef jeex na même dem na ba si ñun sax daanaka bu la yàlla dimbalul lool sa njaboot amuñ si yow soxla bu seen bopp bu ko defee yow nga ne sa bopp sa bopp nag ni nga ciy nekkee mooy neel ci jub rek ak dëgg yàlla jàngale liggéey dundi ñaxe dund si dund ñax loolu mooy li nga xam moo moo am solo. maa ngi nuyu kilifa yi fi teew yëpp euh, nga xam ni mooy moor ci ñun ñu ngi tool euh, Euh, Cheikh Cherif Dia euh, bu Thiès mi ngi ni toog waaw kële ñoo bokk bàyyi ay maamam ak suñuy maam ci Thiénaba Kajoor mu jógee Italie ànd ak soxnaam ñëw yendu suñu ziar si tabarkàlla di nit ku baax euh, di taalu bi sëriñ ma liggéey waaye ñun mu nekk suñu doomu ndey nekk suñu wóllale di nit ku baax daan liggéeyal sëriñ biit liggéey boo xam ne ci bitim réew bu am solo ba boo demee ca Naba Kajoor ndeysaan jumaa ja demee moom daara ja mbaar na yëpp ñoom ñoo ko financé muy Pape mu ngi ni te looloo muy def foofa yal na ko yàlla may kartan bu kartan gi yokkoo fu mu dem ci waa Cekkeen fekk lu ñu def ci lislaam ak kilifa diine lu mu ci man dana ci def ba def ci lu ëpp doole ndax ñun dana ñëw fii dana nu teral léegi rek la fi ñëw indi fi teraanga yu bari yàlla ko yàlla doon sutur ñu ngi gërëm sëriñ Mor Gueye di ko ñaanal ah, yàlla moo ñu boole ci lu bare bare bare waaw moo tax boole bi mënut weesu lii nga xam ni moo moo xew ngeen teg seen bët waaw kon nag yàlla yàlla sàmm ko te aar ko te yokk ko boole na ko nun ñu bokk groupe WhatsApp bépp mu leen di ziar di leen jégalu asalaamaaleykum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 إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا ربك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إن قال يوسف لأبيه يا أبت إن إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين صدق الله العظيم